bonsoir à tous et bienvenue de 7TV waxtu bi jot na sunu gan yegg si na ñu am plaisir di recevoir euh, tey ci plateau bi euh, Marlène euh, Amadou Niang nekk spécialiste des finances publiques et de la gouvernance économique directeur exécutif bu IBP Sénégal Marlène Amadou Niang ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. c'est un plaisir pour ñun di la dalal suñu plateau mais merci le plaisir est partagé. jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax baax li nga nangu suñu invitation ñuy commencé d'abord euh, par euh, organisation bi nga euh, jiite muy IBP Sénégal naka lañ ko mën a comprendre que ça signifie ak lan mooy lan moo ko tax a jóg. waaw jërëjëf c'est une organisation boo xam ni dafay yëngu ci lépp loo lu jëm ci construction citoyenne. Mm-hmm. ndax Sénégal toll na foo xamante ne ak àdduna toll na foo xam ni yi dañuy laaj beaucoup de comptes à leur à leur gouvernant mm-hmm. kon nag dafa am solo ñu xam bu weesoo politique li nga xamante ne moom la état yor ci ay jumtukaay ngir euh, doxal ay politique am mais aussi répondre au besoins des des citoyens moo tax it ñuy liggéey sur ce qu'on appelle les recettes maanaam le budget de mm-hmm. l'état euh, sur sa partie fiscale et les dépenses publiques di jéem a fexe ba xam lan mooy priorité citoyens yi jàppale leen dans des activités de formation d'assistance technique de soutien de communication de sensibilisation à connaître leurs droits mm-hmm. mais aussi dans une dynamique de citoyenneté constructive ñu mën a fexe fi nga xamante ne foofu la ñu war jëlee des décisions qui vont changer leur vie seen bat egg foofu mm-hmm. muy maanaam li ñu naan la transparence la participation et la redevabilité di def tamit assistance technique à l'État dans des secteurs prioritaires mm-hmm. yoo xam ni sénégalais yi am nañ ci ay jafe-jafe comme le secteur de l'eau euh, de l'hydraulique et de l'assainissement le secteur de la santé euh, le secteur fiscal les la sécurité de loolu yëpp boo ko jëlee daal mën nañ ko tënk ci fexe ba euh, budget yi nga xamante ne état yor na ko ak collectivité locale yor nañ ko collectivité territoriale yi doon ay budget yoo xamante ne méngoo na ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Sénégalais yi di yëkkati mm-hmm. que les budgets soient une réponse aux besoins citoyens. D'accord. ñu financé nag beaucoup d'organisations non gouvernementales on vingt cinq partenaires actifs au Sénégal. Mhm. ma di leen di nuyu tamit di rafetlu liggéey bi ñu def ak ah, euh, am suba ci assemblée nationale mais avant loolu organisation bi nee nga dañuy taxaw dañuy liggéey ci euh, euh, citoyens yi. par rapport à leurs droits les droits des citoyens au Sénégal je pense ñoom xam nañ ko. parce que maintenant dootuñu nangu kenn nañ ko ci mën a wax ci wàllum citoyenneté y a encore du travail à waaw Sénégal at yi ñu génn dafa mu lu mu wone euh, dafa wone ni les gens sont moins intéressés par li ñu naan les questions politiques. les mhm. questions électorales naam am na fi solo parce que ku nekk am na fu mu far am na xalaatam mais li gën a soxal sénégalais yi mooy ci wàllum droit yooyu ñu am muy droit à l'éducation droit à la santé droit à l'emploi droit à l'habitat lépp li nga xamante ne rek jàpp nañ ni ci constitution ak ci yoon état moo ko war a jagleel ay citoyens les gens ont commencé à demander plus de comptes à l'État maanaam mhm. sénégalais yi dañu gën a yeewu exigeant waay gën a exigeant mhm. exigence boobu am na solo nga am ko ci ki nga xamante ne moom nga dénk sa réew mais am na tamit solo nga am ko ci sa bopp maanaam jikko yi comportement yi doxalin yi war nañ ko seetaat mhm. génn nañ ci at yoo xamante ne doon na at yu métti doon at yoo xamante ne il y a eu beaucoup de difficultés mais démocratie moo tëddee noonu mais jàpp naa ni toog toll nañ foo xam ni les dirigeants war nañ gën a gestu les citoyens jéem a xool lan la ñu war a yeesal ci seen doxalin ci seen éducation ci seen construction citoyenne surtout qu'on a une population majoritairement jeune euh, jéem a xool par parloo bi ni ñu koy wàññee prioriser jeunesse boobu ni ñu koy gérer waaye itam ñun mi nga xamante ne ñoo ne dans les les différents cercles muy médias di société civile di ONG mm-hmm. ñu xool ci suñuy programme nan la ñuy fexee ba bu ñuy xamal nit ay droit am tamit ñu xamoon ko lan mooy ay devoir am liggéey boobu effectivement ah. euh, am na solo fi ñu toll nii par rapport aux exigences il y a un débat qui se pose actuellement mooy actualité loo xam ne war na premier ministre muy la déclaration de politique générale euh, le débat n'a jamais été aussi passionnant parce que xëy na dañ ko tënkoon dans les euh, précédents exercices yi nga xam ne moo soxaloon ñi fi nekkoon mais pour le cas présent avec Ousmane Sonko il un débat qui se pose autour de la jii nii heureusement ba wax na ci sànq mm-hmm. finalement dina ko def mais am na ñu war a xoolaat DPG solom lan la surtout rawatina ci sénégalais yi mais aussi ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu jiite. Euh, le DPG c'est un acte solennel boo xamante ne constitution moo prévoir ni chef du gouvernement. Mhm. ci sunu réew qui est le premier ministre mën jox des orientations. à l'ensemble des Sénégalais à travers la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale sur le programme de gouvernement priorité yi nga xamante ne Sénégalais yi am nañ ko mhm. mën nañoo changer d'une année à une autre d'une époque à une autre président Abdou premier ministre Abdou Diouf ba tey premier ministre Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne jot nañ fi jaar avant lui ils ont l'obligation de faire une déclaration de politique générale mm -hmm. et je suis content d'entendre effectivement que sans que sur le principe il ne l'a pas contesté mm-hmm. euh, loolu dafay tax ba képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo ci réew mi wala yaa ngi liggéey ci réew mi wala nga bëgg fi investir wala réew mi ñor la nga xam fi nga xamante ni fa la état di jëm ci wàllum économie ci wàllum société ci wàllum emploi ci wàllum sécurité mhm. ci wàllum gestion des ressources publiques te am na solo euh, lool ci euh, ñi nga xamante ne ils ne sont pas dans le landerneau politique ndax dañuy fàtte ni Sénégal am na ñu bari ñoo xamante ne ils sont auto employés am na ñoo mhm. xamante ne ce sont des des employés am na ñoo xamante ne ce sont des investisseurs am na ñu ne dans la presse am na ñu dans d'autres secteurs ñooñu ñëpp newuñu assemblée coowal politique intéressé wu leen. Mhm. waaye ils ont le droit de savoir gouvernement bi fu mu jëm. Mhm. donc pour man coow li di ko indi woon yëpp c'est qu'il n'y avait pas de réponse de ce point de vue-là le premier ministre est revenu sur le principe et a dit qu'il fera sa déclaration de politique générale. Mhm. mais man question bi may gën a posé wu mooy est-ce que Sénégal war na toll foo xam ni ay coow règlement intérieur. moo fi am ñu naan règlement bi baax na wala règlement bi baaxul ak dëkk bi fu mu toll. Mhm. en matière de nit ñu fi am xam-xam. en matière d'évolution de notre pratique démocratique loolu tamit dafa waral ni euh, sénégalais yi war nañoo gën a exigeant aussi envers ñi ñu fi toggal. on aurait pu régler ce problème sans pour autant que débat bi posé wu loolu nga bëgg wax. je pense qu'un débat peut se poser et c'est le fonctionnement de la démocratie. ce qui est important premier ministre nee na moom remettul en cause le principe de la déclaration de politique générale mm-hmm. nee na bu ko assemblée nationale euh, tegul ci yoon maanaam bu ñu xoolaatul règlement intérieur il va le faire dans un autre cadre mm-hmm. ce qui à mon avis n'est pas ce qu'il y a à faire parce que notre cadre ce n'est pas un cadre qui est prévu par les dispositions de la loi. mais justement euh, sur le principe remettre en cause obligation jëm ci DPG bi. oui mais en parlant de l'Assemblée nationale te nar ko faa génne est-ce que tamit narul semer euh, les germes d'un conflit boo xam ne mën na ñëw plus tard entre les deux pouvoirs te loolu seen liggéey xëy na euh, war na ci mën a mën a mën a. ce serait un conflit inutile. Mhm. te je pense que Sénégal fi ñu toll tey li ñu soxla mooy responsabilité. bu ñu génnee sphère politique bi. Mhm. Sénégal fi ñu nekk nii dëkk bi lu bëri taxaw na. parce que changement de régime moo demee noonu. Mhm. il faut que beaucoup de choses se remettent en place pour que ça fonctionne. il faut que ñu xam fan la gouvernement bi jëm il faut que nit ñi tamit gën a am euh, euh, euh, des garanties pour investir et cetera loolu c'est le cours normal des choses. Mhm. gëm naa ne loolu moo ëpp solo. nekk ci coow fii lañ ko war a defee wala fële lañ ko war a defee. aujourd'hui on a les moyens qui vont nous permettre de faire une déclaration politique générale. Mhm. il faut la faire dans les règles Euh, prévu par la constitution pour man Sénégal li ñu xeex at yëpp. Mhm. ba tollu fii Sénégal foofu la toll. ñu bañ jalgati yoon waaye tamit nit bañ utiliser yoon. pour euh, barrer la route mm -hmm. à des gens qui vont devoir travailler pour l'intérêt ah, malheureusement ce débat autour de la déclaration de politique générale euh, dafa xaw a nëbb benn sujet important euh, soxal le ministre des finances et du budget qui sera demain devant les députés convoqués pour le débat d'orientation budgétaire loolee lan signifier déjà pour les autorités ñoo xam ne elles sont sur place jamono ji le débat d'orientation budgétaire de gestion des finances publiques de l'UMOA dañu ne léegi dans l'UEMOA dañu bëgg xam lii xew at bi at bi ci topp ak beneen at bi ci topp maanaam sur les trois prochaines années mu nekk la pluriannualité mu ñu ne euh, le ministre des finances war na présenter à la représentation nationale avant le 30 juin le document de programmation économique et budgétaire pluriannuel mooy mhm. DPB e. muy document boo xam te ne c'est une euh, planification triennale ñu naan une planification glissante chaque année dañ koy ajuster document boobu mooy wax dans les trois ans voilà les recettes qu'on attend mhm. voilà les dépenses qu'on attend voilà le niveau de la dette publique voilà le niveau du déficit voilà ce qu'on escompte des recettes fiscales mhm. secteur bi ak secteur bi ak secteur bi la ñuy prioriser on va y mettre tant voilà ce qui est attendu des retombées de l'exploitation pétrolière mhm. muy un autre élément de la démocratie ci li ma doon wax sànq nekkatuñu démocratie politique kese léegi dañu nekk ci démocratie financière sénégal yi dañu bëgg di xam koppar yi nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci ñoom muy seen impôt di taxe yi ñuy fay di redevance yi di con contravention yi xaalis boobu nan la ko état di utiliser. Mm-hmm. te réew buy dem bay toll fu muy saytoo l'impôt fu muy saytoo l'utilisation des ressources publiques moo lay woon ni foofu maturité démocratique mu ngi fay am ndax boo xoolee Sénégal li ñu doon waxtaane yëpp waxtaanu élection la woon ak waxtaanu parti politique bu ñu nag ba léegi ñuy wax waxtaanu secteur da ngay xam ni c'est quelque chose d'important et je le dis c'est quelque chose qui n'a pas de lien avec la déclaration de politique générale. Mm -hmm. loolu c'est une obligation. Uh -huh. euh, de la loi organique relative. Ah, c'est une obligation mais les députés aussi euh, doivent être informés euh, avant le jour pour ñu xam un peu comment ça se passe mais ba démb euh, ñi ngi xamal ne jotaguñu document de programmation pluriannuelle des dépenses bi nga xam ne euh, sont consignées voilà les dépenses par ministère ou institution constitutionnelle fi ma jëm mooy euh, par rapport ak blocage inutile bi nga doon wax sànq est-ce que tamit à ce rythme du duñ ci dem parce que les députés ngi sonné alerte bi di tirer ñu ngi sax di tirer. comment j'ai oublié encore le terme. la sonnette d'alarme la sonnette d'alarme c'est ça merci. Euh, est-ce que tamit euh, duñ ko corriger wala est-ce que xaj na ci fépp fépp suba. man euh, document boobu gis naa ko en ligne il y a hmm. quelques jours ba exploité ko. d'accord gëm naa ni dans tous les cas war nañu fexe ba député yi. di jot le les les documents budgétaires mhm. bu ñu ko jotulee tamit dafa di loo xamante ne ce n'est pas normal waaye ci la ma ci gis ak li ma ci xam ministère des finances document boobu publié publié nañ ko mhm. ndax man am na ay fan ci bëgg a gis mën nga ko gis oui c'est mhm. ce qu'on appelle la transparence transparence du rek loo def nga wax ko la transparence c'est aussi des documents yoo xamante ne dañuy fexe ba ñu accessible en ligne euh, gis nga citoyenneté fa lay toll citoyenneté fa la war a toll ñun ñu xam les grands moments de la vie budgétaire les grands moments Euh, de la gestion de notre pays ñuy fexe ba ñun mi journaliste ñun mi société civile organisation de développement ñu fexe ba am information bi liggéey ci et donc c'est une obligation boo xamante ne avant le 30 juin mhm. qui est la fermeture de la session la ko député yi war a xool parce mhm. que c'est ce qui permet de servir de rapport au débat d'orientation budgétaire ah. fi ñu jëm ci anne yi ñu jëm trois ans yi nii parce que ce ce, ce gouvernement bi fi nekk mhm. euh, ils avaient euh, fait des promesses bi bi ñu nekk dans l'opposition en temps de campagne euh, jëm ci ni ñuy doxalee bokk na ci suppression yenn institution yi bu ci mel ne conseil économique bu ci mel ne HCCT yooyu aussi tey jii nii dañ ko ci war a xamal maanaam parce que budget la boo xam dafa war a fonctionner ak ñoom donc tey jii nii bu ñu présenté loolu à l'Assemblée nationale yëpp daf a feeñ ñu a wax dafa am solo li ñu naan c'est l'exhaustivité de l'information état lépp lu mu bëgg def rek war na ko ji def mu leer nañu naam l' information mën na bañ egg en un certain niveau de détail parce que document de planification la. Mhm. waaye information bi député yi am te sénégalais yi war ko am à travers les députés. oui war na fexe ba ñu xam Sénégal fu mu jëm. en termes de secteur lan la ñu fay investir. Mhm. en termes de priorité lan la ñu fay def. daanaka document boobu boo ko xoolee war nga xam ci ñetti at ñi jëm. Mhm. gouvernement bi fan la ñoo bëgg a ndax bëgg nañ wàññi prix yi. ndax bëgg nañ investir dans l'emploi des jeunes wala est-ce que dañu bëgg investir dans un autre secteur. c'est une planification détaillée wala. oui c'est une planification détaillée. qui mhm. est triennale et qui revient sur euh, un certain nombre d'agrégats. li ñu les hypothèses du secteur réel. oui jëm secteur primaire secondaire tertiaire. ñi jëm sur les opérations financières de l'État. Mhm. Euh, recettes dépenses dette publique ak lu jëm maintenant ci secteur prioritaire yi. Mhm. État dina ne lii mooy secteur yi nga xamante ne bëgg naa ci investir. di laa ci naka def ak nag li ñu naan les risques ndax boo xoolee Sénégal euh, ak àdduna bi yëpp mhm. at yi ñu génn li ko gën a marqué mooy loo xamante ne xaaruñu ko woon. mu hmm. bettuñu. état nag war ajusté wu. à a Covid benn la ci. Covid 19 euh, benn la ci guerre Ukraine Russie bi ñaar la. pétrole bi aussi njëg yi yéeg a ko wàcc. ci ci lay bokk te le Sénégal compte beaucoup sur l' exploitation du pétrole. le Sénégal compte beaucoup sur l' exploitation du pétrole te li ma naan euh, boo nekkee optimiste sa dëkk bu amee pétrole dañ ciy kontaan. Mhm. léegi nag am na loo xamante ne état jot na koo def y' a une loi qui revient sur la répartition des revenus pétroliers mu am euh, et gazier mhm. en général mu am lu jëm dans le budget général de l'État près de 90 pour cent leneen li jëm dans un fonds intergénérationnel ci li jëm ci budget de l'État ñu ne duñ ci fay lu jëm ci ay salaires ak yooyu mhm. dañ ciy fay des dépenses à fort caractère social maanaam lu jëm ci éducation et cetera euh, revenu yooyu tamit am na loo xamante ne ñu ngi ko ciy xaar mooy que ça puisse transformer la face du pays maanaam secteur yi nga xamante ne waroon nañ ci investir te mënuñ ci woon investir ñu def ko ci relever le niveau des plateaux euh, lutter contre les inondations fexe ba nit ñu jot ci assainissement mhm. euh, élargir la carte euh, euh, scolaire waaye loolu yëpp li koy indi rek gestion responsable la mhm. te man fa laay ñëwaat tout le temps parfois je me demande est-ce que nit ñi signal bi sénégalais yi di lancé dañ koy bàyyi xel sénégalais yi fi ñu nekk nii li leen intéressé mooy ñoom seen bopp soxla yi ñu am état mën leen ci jàppale mhm. état nag léegi li koy li koy concurrencé dafa bëri ndax état li mu ne woon dafa uteeg li mu doon tey aujourd'hui l'état joue un rôle de stimulateur même bu fekkee ni day intervenir dans beaucoup de secteurs ou dans des situations de crise mm-hmm. mais am na yeneen acteurs yoo xamante ne dañoo am solo ci liggéey bi nga xamante ne état da koy def dañoo xam ne dañuy soxla des signaux mm-hmm. transparence na dialogue participation loolu lay tënk loolu la wund moo tax it la question du dialogue de la gestion transparente des ressources mm -hmm. et de réunir les Sénégalais autour des priorités Euh, pour que ñu xam fan la ñuy affecté ressources yi surtout les ressources pétrolières dina doon loo xamante ni c'est une priorité euh, à respecter. Ah, cet état bu ma nee cet état mooy xëy na ces nouveaux dirigeants. bi ñu fi nekkee léegi euh, matagul trois mois. pourtant le détracteur pense que ni ñu tàmbalee jëm ci wàllum dette bi dafa dafa xaw a inquiétant est-ce que même avis bi ngay ngay am si si question yooyu. xam nga dette dañ ciy wax lu bëri mais dette dafa ji loo xamante ne dañ koy autorisé par la loi de finance. Mm-hmm. état mënul autorisé woo te bu ñu xoolee régime bi fi toog ba léegi jëluñu loi de finance rectificative mhm. mooy maanaam loi de finance bi nga xamante ne moom lañu ñu voté sous l' empire de de régime loi de finance boobu mooy daw ba léegi maanaam jéego yi ñu tegagum yëpp lu tàmbali woon la ak ñi fi nekkoon déjà ils ont eu l' mhm. mooy la première chose am na lu ñu àbb muy eurobond mhm. qui n' est pas la meilleure des choses à faire ah. parce que eurobond dalay exposé à un risque de change et un risque dollar wàcc en fait exactement li ñu doon gën a tàmm def c'était avoir des emprunts sur le marché de l'UMOA maa ngi liir sànq ni am na emprunt obligataire bu ñu bu ñu lancé mm-hmm. la dette en soi du lu bon boo abbee li am solo mooy fi nga koy investir mm-hmm. bu ñu xoolee le programme de gouvernance plus large bi nga xamante ni moom le gouvernement bi woote moo tax DPG boobu am solo mm-hmm. dañu ne ñoom dinañ yeesal dinañ jubal dinañ jubanti ils vont essayer de voir fi nga xamante ne ñu ngi fay yàqee xaalis fi nga xamante ne investissement bi sooxee na fa ñu yeesal ko ba nga xam ne li ñu doon perte ci ay ressources daañu ko récupérer mhm. am li ñu naan des marges budgétaires loolu daf ñuy permettre suñu situation finance publique bu gënee baax gën a rafet gën a yees qu'on puisse accéder à des prêts concessionnels mooy prêts yi nga xam te ne yi dafay gën a wàcc baax mhm. loolu yëpp c'est des choses qui sont imbriquées moo tax duñ ko mën analyser d'un seul euh, pan il faut que ñu mhm. koy xool de manière globale effectivement am na loo xamante ne mënoon na demee neneen comme on le dit il faut je pense laissez quand même un peu de temps pour apprécier. Ah. trois mois pour apprécier des changements oui. systémiques. mais par rapport même... aux premiers actes posés aussi. oui euh, ñu jëm ndax dal na xel par rapport ak observateur bi nga bi en tant qu'observateur je pense que li am solo mooy euh, certaines mesures annoncées déjà ñu dox ci ay quelques euh, euh solutions. Mhm. boo xoolee il y a une diminution euh, du prix. du pain bu ñu xoolee les ce qui a été fait comme avancé sur la question. des relations entre les meuniers et, l'État gis nañ durant la période de, euh, de la Tabaski euh, la volonté qui a été affichée sur la réduction des prix mhm. gis mm nañ également tout le travail qui a été fait pour waajal nawet wi et pour waajal également campagne agricole bi mm -hmm. donc on ne peut pas dire que foofu lu baax amu fa waaye nag war nañoo gën a euh, biral l'information mm des Sénégalais sur les moyens pour atteindre les promesses fi ñu toll ñu ne le document de référence Euh, politique économique le référentiel de politique économique bi nga xam te ne mooy ñëw dooleel wala remplacer PSE dinañ ci jot mhm. kooku yàqam dinañ ci jot DPG boobu gëm naa ni bu amoon ba président euh, de la République à travers son premier ministre ñu xam moom gouvernement bi nga xamante ne moom la fi teg ce qu'ils vont faire je mhm. pense que ça c'est quelque chose mais justement par rapport ak fi ñu bëgg a jëmee réew mi ak leur promesse les sénégalais pensaient que dañu ñëw rek dérouler euh, c'est pas aussi facile ils l'ont reconnu te ñu ngi ci mais est-ce que aussi euh, c'est leur faire un mauvais procès euh, de dire que ñu ngi continuer ak li fi l'ancien régime nekkoon maanaam loolu lu luñ lu ñu mën a comprendre la wala ñoom ñoo xamagul exactement fan fan lañ jëm en matière de politique publique moom lépp loo bëgg soppi mhm. dafay jël temps hmm. léegi nag waxu politicien wala waxu politique dafay uteeg euh, la réalité de la gestion des ressources publiques. kuy politique engagement yi muy jël wala wax gi wala wax gi muy wax loolu peut-être euh, ça va être dans un certain cadre. mais boo ñëwee dans le cadre de la gestion bi nga xamante ne ñun moom la ñuy waxtaanee. mais dans ce cadre de cette gestion là lépp looy def dafay jël un certain temps moo tax ñuy wax le court terme le moyen terme le long terme. bu ñu xoolee la baisse des prix. Mhm. effort yi ñu ci def c'est des efforts à mais à li nga xamante ne mooy permettre sénégalais yi di di dundee li nga xamante ne moo ñoom moom la ñuy liggéey sans que l'État ait à subventionner ou à tordre le bras qui que ce soit mm-hmm. dafay fekk ni ñu am un secteur agricole un secteur des pêches un secteur de l'agriculture et de et l'élevage bu compétitif boo xamante ne ay sénégalais ñoo ko moom mm-hmm. boo xamante ne ay sénégalais ñoo ci développer des marges yoo xamante ne ils peuvent employer mais ils peuvent également mettre à la disposition des sénégalais des biens yoo xamante ne méngoo na seen i bëgg-bëgg waaye aussi les prix sont des prix importants mm-hmm. ndax boo xoolee coono yëpp li ko indi di ci bëri dañ koy importer. booy importer nag da ngay importer l'inflation mm-hmm. parce que amuñ ci maîtrise en fait amoo maîtrise ci prix yi mm-hmm. donc état li muy def day obligé di wàññi ay droits de douane wala di subventionner te loolu yëpp c'est des efforts qui sont consentis par le trésor mm-hmm. public loolu nit ñi war xam te bu ñu xoolee at yi ñuy génn crise yi fi jóge muy la crise ukrainienne la crise euh, am na crise nag yoo xamante ne ce sont des crises continues mais kenn du ko dégg les changements climatiques mm. inondation yi muy indi boo paree ko indee mm-hmm. il faut nga xam ni liy soppi réew mi ce sont des choses qui vont prendre du temps mm-hmm. mais il faut que le signal au-delà du discours ñu mën ko joxe dans une posture de politique publique ah. mais voilà le cap ñun lii lañ nar a def ñun état yéen citoyens lii lañ soxla ci yéen. c'est mm-hmm. ça le débat. Ah, le régime précédent a mis plus de milliards pour xeex euh, les euh, inondations. Euh, ba tey saa yu xiinee Dakar dañuy jaaxle euh, qu'est-ce qui l'explique euh, nañ ko liggéey moo baaxul wala li nga wax léegi la changement climatique bi dafa am lu mu ci lu mu ci def. inondation li ko indi ci Sénégal dafa bëri aménagement du territoire ci la. Mhm. les mauvais comportements ci la le manque de coordination des politiques publiques ci la. Mhm. le défaut d'assainissement ci la. Mhm. kon tey képp koo xamante ne bëgg na régler problème mu inondation la question de l'urbanisation il faut mu bàyyee ko xel. l'aménagement du territoire il faut que mu bàyyee ko xel la question des changements climatiques qui est un facteur aggravant il faut que mu ko xel le mode de vie l'habitat les comportements des citoyens il faut mu bàyyi ko xel. mais avant avant avant euh, changement climatique. Oui. urbanisation ak aménagement xëy na li amagul la. mais ce qui a été déjà fait parce que on donne souvent l'exemple de Paris ne bi ñu bëggee assainir assainir dañoo teggi lépp mais est-ce pour fu mel ne Dakar. fu mel ni Dakar li nga xamante ne mooy permettre ñu assainir certaines zones yi. ak li nga xamante ne mooy permettre ñu xeex inondation dans certaines zones ci tënk dafay laaj des mesures difficiles mais yoo xam ni ça va être des mesures utiles mhm. am na zone yoo xamante ne nit waru fa dëkk te mënu faa dëkk kooku ak loo mënti def inondation dana ko fa fekk li ngay def pour atténuer un peu cette question là mooy li ñu naan la restructuration urbaine mhm. boo xoolee lépp li nga xamante ne dafa jëm ci la question de l'urbanisation de l'aménagement du territoire boo nekkee ci yoonu ndox à la kulli haal mhm. donc il va falloir déplacer à un certain moment certaines populations ça va être une décision courageuse et une décision coûteuse, coûteuse ouais. mais il va falloir surtout interdire euh, la, délivrance de titres de propriété mmh. mais également d'autorisation de construire dans des zones qui sont impropres à l'habitat mais ñun ah ah. itam en tant que citoyen nañuy bañ di dëkk foo xam ne nit waru fa loolu tamit am na solo. am na plus des autres facteurs. d' euh, pour ce qui est euh, du réchauffement climatique ak changement yu mhm. Afrique ndax dafa am rôle bu mu ci def parce que souvent quand on le dit on pense plus à l' euh, on pense que ñun dañuy subir en fait li nga xam moo fay xew di ñu atteindre est ce que am na loo xam ne ñun mën nañu ko ci def pour pour justement l' éviter. mais loolu li nga wax da am solo c' ñun bu ñu xoolee Afrique li nga xamante ne joué nañ ko ci ci ci ci ci euh, dérèglement climatique yi mhm. lu néew la par rapport aux pays producteurs mhm. te malheureusement externalité boobu ñuy produire maanaam euh, jafe-jafe jooju ñu ñuy jural ñun ce n'est pas assez internalisé am na nag tey li nga xamante ne ñu ngi koy woowee les fonds verts climat muy xaalis goo xamante ne ça a beaucoup d'objectifs parmi lesquels atténuer les les chocs du changement climatique li ci Afrique di jot boo xoolee tamit des na parce que suñu gouvernement yi euh, li ñu war a def ngir boole sénégalais yi wala boole africains yi dans les plans nationaux d'adaptation dafa des mhm. kon day mel nii rek euh, am na opportunité yoo xamante ni mën nañ ko am ñun pour bénéficier euh, de la lutte contre ces changements climatiques là yoo xam ni dafay laaj citoyens yi gën a jege état bi état bi gën a jege jege citoyen mais pour répondre à votre question effectivement li ci gën a bëri dañ koy subir mhm. ndax nous s sommes pas Euh, producteurs euh, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. merci beaucoup di la sant bu baax a baax. mais merci beaucoup c'est moi qui vous remercie. merci beaucoup merci c'est un plaisir vraiment de <laughs> le recevoir waxtaan ak moom waxtaan wi am na solo bàyyi la nga nga tàggoo. jërëjëf ah di rafetlu liggéey bi ngeen di liggéey et puis di rafetlu aussi des émissions sur des thématiques comme ça. merci gëm naa ni Sénégal fa la toll. politique am na solo. mais mhm. nañuy waxtaanee li nga xamante ne na Sénégal yi. jërëjëf c'est important Malène Amadou Niang mu nekkoon sunu gan nekk spécialiste des finances publiques et de la gouvernance économique directeur exécutif bu IBP euh, Sénégal dig daje euh, lundi incha allah ak beneen gan à la même heure le journal c'est dans un instant merci beaucoup.